ren di màggal lii di juróom benneelu fukkeelu at anniversaire gu mu moomee boppam waaye nag daa mel ni dañoo fàtte ne fii ci Sénégal am na ab bërëb boo xam ne kenn mësu ko coloniser muy français rawatina anglais nga xam ne daanaka réewu Afrique yépp ñoo ko tegoon tànk. foofee nag mooy ñaani. Euh, euh, maamam yi ñuy jóge Mali. alors mooy famille Camara bi nga xam ne ñoom ñoo doon xeexal Sunjata di année booru année 1800 huit 1400 yooyu mille 15e siècle lañ nekkoon Mali bi ñu gisee ne ñoom mënuñ fa nekk buur ñu décider jóge foofu mais seen xaram yi waxoon nañ ne mun ngeen seen fi jóge mun ngeen nekk buur booru penku hmm? Euh, et a ce moment da di jël euh, am na fétiche bi nga xam ni yore woon nañ ko moom moo leen di wax su ngeen yeggee rek nga xam ni euh, fi nga xam ni mooy ni ñoo xam ne gré tañ termitière xaw ma nan nañ ko wax si olof su ngeen yeggee si lool rek neen dine bu mag dëkk nga xam ne am na loolu neen fekk na gis foofu foofu mooy doon seen seen dëkk nga xam ne mun neen ko sànc mu nekk euh, dëkk buur alors ci lañ joxe doxee jóge foofu euh, malheureusement quand am ñu boussole ñi ñi am am ñu repère bu baax ñu dugg Guinée jaar Sédhiou jaar Gambie après ñëw Koungheul Koungheul foofu lañ gën a yàgg ci territoire bi d'abord après ñëw Koungheul saucé jóge foofu ñëw Koupantoum Koungheul euh, Koupantoum saucé si Koupantoum Socé bi ñu fa toogee nag ci lañuy ci la bi ñuy rëbb parce que ñoom ay rëbb la ñun ñi dem euh, benn si ñoom kenn si ñoom demoon booru si àll bi nag euh, ak ay xajam xaj yi nag di wax ne bu ñu yeggee euh, bërëb boobu xaj yi wan ko ne ne fii dëkk bi nga xam ne foofu place bi ñu nekk nii su fi def dëkk di nga am benn dëkk bi nga xam ni mun nga fi falu lu yàgg te dafa dina naat

ñaani capital boobu ñeena nañ ñeenti buur ak ñeent faloon nañ foofu ba papa yi kimintaan léegi mu mu tudd saara maasa saara maasa saara am na amoon na jabar yu bëri mais amoon na jabar bi nga xam ni soxna bi nga xam ni moom wulli la jóge woon kooku yàlla def ne amuloon doom yàgg na amuloon doom parce que daawul bëri di di faral di ay ak moom léegi ko benn jour nag benn shérif jaar foofu wax ko lu mu war a def pour que mu mun a am doom ci mu ko defee si reer la ko jàllale ñu ne euh, ci la buur bi mu lekkee ba pare mu aye ci guddi googu benn guddi googu la aye foofu mu yàlla may ko wërsëg mu mu am kimintaan donc kimintaan benn doom la si yaayam mais amoon nay doom baay doom yu baay yu donc yu ci bëri sax de euh, ci doom baay moom mun nañu wax ni juróom-benn la ñoo ñoo ko jiitu woon si ñu ko war ñu waroon doon seen pap mais moom dafa amoon xam-xam nee nañ dafa mel ni comme jinne parce que ci bëri dafay dafay euh, disparaître de temps en temps amoon na ay jikko daal nga xam ni melul ni yeneen yi léegi euh, ma seen papa bu muy bugg a bu mu màggatee bugg bugg gaañu mu woo benn shérif ne ko dama bëgg xam si sama doom yi kan moom mu mun a donn ci la ci la chérif bi wax ko li mu war a def si benn téere bi nga xam ne dañ koy def si reer reer boobu bu ñu ñuy toog ñu ngi koy ñu ngi ko nettali mu ñu koy toggee ba pare ñuy doom yëpp nañ ñëw ku ci rekk daal ku ci dajee ak euh, euh, téere boobu moom moom mooy doon buur mais bu mu ko wax kenn léegi mancé kimintaan mais kimintaan bon bu mu nekkee bu mu ñëwee muy reere rek jël na ci téere bi dem euh denc ko ba si ëllëg si papa ji laaj ñëpp bu mu ko laajee mom mu xamné mom moko moo jël alors mu waxul dara donc ba bi bi muy gañu nak légui succession bi dafa defoon ne que moom sixième sixième position la 7e position la nekkoon ba amoon na benn frère yi nga xam ñoko ñoo ko ñom te ñoom jubuwuñu

lu ci bëri dafay lu muy lu ñuy dafa doon nawet si yeneen euh, yeneen dëkk bu nga xam ni mooy dëkk bi actuel mooy nungu siin foofu la doon nawet bi mu nawetee foofu dëkk boobu rek mu ngi ko jëlee sax si ay nijaayam bu mu fa bu boppam gaañu moom foofu la fekk féete woon bi bi bi ñuy papaam gaañu nag ñu xeex bi gën a tar mook sa frère am yi léegi nag moom yàlla def na ñu bu ñu xeexee moom mu gañe leen ci la installé moom capitalam Ndungu Sine mais bàyyi yëpp ñi nga xam ne ni nga xam ne ñu ko doon def si si si si nguur gi si biir njàmbur donc mais capital bi moom ko yóbbu woon Ndungu Sine alors bu mu fa nekkee nag am na aussi yeneen barab bi nga xam ne foofu moom lay gën a faral di nekk parce que ci même dañu ne euh, kiw euh, jinne la ñu ci bëri ne nañ ay jabaru jinne la amoon donc

mu canon yi ba ñu ko ñu ko ñu ngi ba léegi actuellement ñu ko ñu ko transféré euh, île de Gorée donc woné ne que une fois ba traversé nañ euh, fleuve bi tubaab bi foogoon nañ ni dootu mëna mun ko du len mëna dab mais mom bu mu ñëw ba ci ba ci dex bi gis né tubaab bi su len bàyyee dañ ko nar a parce que mom bu mu xamné du attaquer kenn mais su xasee soko ko attaquer dina sécuriser bopam donc bu ngi gisee tubaab bi dañ nar a ñëwaat mu traversé euh, géej euh, dex bi lu mu ko traverser nag comme amuloon euh, gaal dafa ñu ne dafa dafa amoon li nga xam ni dafa doon wëlis mu wëlis rek ay jasig ñëw ci la ci lañu troupam yi maanaam nitam yi yéeg si kaw jasit yi mu ñu traversé fleuve

c'est pas la peine légui mu gën leen euh, humilier mu bàyyi leen foofu mom moom su traversé su euh, bu mu euh, traverser fleuve Makati da fay baye fof ben ben nitam rek nga xam da fay daj impo mais mom du attaquer ay nit mu dellu si Ndingu Sine beneen fànn aussi donc Lat Joor ñëw na foofu côté ouest bi manam boru Koungheul momit it Maba Jaxu ñu ne ñoo moko ko pour neko Euh, dëkk yu fu nekk yëpp ñu fay impôt comme euh, loolu moo doon aada bi euh, période boobu soo mënee nit rek dañ ko ni fayal impôt sinon ma def la jàmm donc Maba Diakhou bu mu yónnee Lat Joor ñu ne Lat ñëw ba si frontière royaume ñaani mu def benn camp mu fanaan foofu yónni benn nitam bu tudd Biram Cissé ak ak géwélam moom biñ ñu demee pour ñu wax que buuru ñaani que Lat Joor ñëw na ne il faut nga fay impôt ñu ne buuru ñaani dafa jóg mu ñaari leket benn bi mu def ci biir teen muy wane ne que lii jàmm la beneen bi mu def ci euh, dóom dóom pour fetel euh, poudre pour fetel donc mu jox leen mu jox ko Birane Cissé pour mu ñibbi ak moom wax ko euh, Lat Joor mais bu ñu génnee rek ba jub si Lat ci si la ñuy ni gëlam bi woy ñaani bañ na ñaani bañ na donc wane ne que euh, roi bi buggul euh, nanguwul nekk jaam ci la Lat mer ñu ne bugg taal dëkk yi mu commencé taal dëkk yi rek ay yëm yam génn dàq ko ay at di dem ba tey jii ñu nekk sët ci ki fa nekkoon buuru ñaani di def seen kent kéntalaay kantan ngir aar seen ndonam maam ci walu aada ak li waral conseil départemental bu kumpemtum daal amal festival bi di pencum ñani di am at bu jot ci jappandalu ben kuréel guñu fa taxawal. ñu gisee euh, nek ñepp ngi wax euh, euh, surtout tuba bi ñu wax colonisation di wane ne ñëw nañu fi coloniser so soo gisee bu baax dañu melni ñom ñoom bu ñëwee pratiquement ñom dominé woon nañ ñëpp te fekk ne so xolé bu baax résistance bi amoon na fii donc amoon na buur yi nga xam ni musuñu leen gagné c' est Mansac Mintan ci la bokk je pense mun nañu wax sax c' est le seul roi nga xam ni kenn musu ko gagné bu mu nekk dund bu muy dund royaume boobu kenn musu loon dugg bu muy dund si royaume boobu donc rien que pour ça mun nañu wax ni que héros la nga xam ni war nañ ko mun a sargal mun nañ war d' abord nit ñi war ko xam et puis ñu sargal ko parce que su loon moom tey Gambie lu tax mu tuuti nii parce que moom la parce que toi bi bu ñu anglais bu bo bëgg génn ñëw jël ci territoire sénégalais bi mu mo leen dàq ba ci fleuve bi comme ni ko waxé bu mu repoussé donc anglais yo mënutu ñoon dem fan motax ci euh, digënté bobu rek la ñu yem de l'autre côté aussi mun nañ xool ni que ah, mettre en place un système de gouvernement xamni ni mun na nekk terre d'accueil yi nga xamni euh am na potentialité actuellement bi nga xamni développer nañ ko foofu

ñu mun a xool ni ñu mun a développer suñu euh, localité ku nekk jàpp ci fi nga domaine bi nga nekk pour mu a développer donc ñu gën a xam suñu histoire ñu développer suñu euh, suñu localité foofu ñu développer aussi culture bi ak tourisme bi parce que am na beaucoup de am na zone bi nga xam ne tourisme bi nañ fi ñëw parce que bëri na ay sites yu yàgg yooyu des sites historiques yi nga xam ne touristes yi mun nañ visiter di ñëw.

yaakaar nañu mun nañ am euh, ndimbal nguur bi pour mun a valoriser situation benn chantier bi mooy ni ma wax rek par exemple ñu xool ni ñu mun a développer dëkk yooyu parce que dëkk yi am na potentialité suñ ko développer ñu foog nga ak partenaire yi ñu am zone boobu suñ ko développer même immigration xale yi di dem ni si mbëkk bi dina wàññeeku parce que am na potentialité bi non seulement sur le plan économique et culturel ak même touristique loolu potentialité boobu foog na bu nañ ko développer te loolu ñu travailler aussi avec euh, dans ce sens pour que mun a def le piste nga xam ni nguur bi mun nañ ci dimbali ci loolu beneen euh, yeneen euh, yeneen chantier yaa ngi aussi parce que sur le plan ni wax naa jeunes ak sur le plan culturel mais li ñu am yëpp si développement si ak sur le plan touriste retombé bi mun na ne mun bénéficier aussi au-delà de Niani mun bénéficier Sénégal donc parce que euh, histoire et ak région bobu lu mu monde a jur Faut naa Sénégal profite. na ci profiter. nguur gi lu ñuy xaar par exemple si colloque bi c'est important pour comme chef de l'État, de toujours financer les histoires générales du Sénégal C'est bien je pense que mun une mun nañ y a yenn histoire yenn gox parce que euh, histoire générale c'est tellement vaste que mënuñu jël yëpp mais su fekkee ne am na démembrement spécifique yi nga xam ne ku nekk mën na mën a génn def ay recherche laaj na euh, nguur bi mun ñu accompagner surtout pour pour pour ñaani dafa laal ñaari dëkk Gambie ak Sénégal moo tax dañuy demander d'abord benn accompagnement chef d'État ak bu Sénégal ak Gambie pour ñu mun a permettre ñu def recherche yooyu ñu mun ñu appuyer si loolu loolu la ñuy gën a yaakaar si ñoom sur ce plan là et colloque Bob aussi ñu mun ko soutenir parce que scientifiquement il faut fa jógee mun nañ ko jàngale sax suñu xalé yi parce que li ñu ala ñuy jàngal histoire bi ñu jàngal leen histoire euh, suñu ensuite sur le plan économique gouvernement a muy développé programme yu bëri surtout euh, si zone rurale yi PUDC ak yeneen PUMA surtout zone frontalière donc ñaani ci la bokk si teriwaatu yi nga xam ne mi ngi si ñaani ci luñ bokk foog naa ni mun nañ def benn plan d'action dans ce domaine commencé nañ déjà ba bind lettre boobu aux autorités pour que li fa ñëw si programme ñu mun ko dugal si si gox yooyu